yàgg ba tey ñu ngi ci biir prison bi ñu gis Modou Lo ñëw mu ñëw prisonnier yëpp jóg Modou ginnaaw bu ma la nuyu la yaakaar naa lii du benn yoon ngay dem si prison yaakaar naa de. waaw waaw lii dugg la tey même fii rek ñëw naa fi def fi ay don xam nga ànd ko sama gars mu vraiment di am contentement ñëw teew fii xam nga wax dëgg yàlla muur na jant bi waaye ci lañ bokk comme li ma la wax fii jombul kenn ku ne ñëw na fi erreur na fi nit lu ne indi na fi nit. mais di leen ñaan rek ñoom jàpp yàlla may leen seen liberté te ku nekk bu dee erreur moo la fi indi yàlla kàttanal la sori la saytaane ba erreur boobu mu bañ la daraat ba nga ñëw fii vraiment ñu ngi ñëw daal bokk ñoom fête bi ci la bokk daal. bi nga dugg see ma gis ñoom ñëpp jóg tàccu la maanaam mu mel ni dañ la yàqamte woon a gis loolu lu mu def si yow. waaw waaw xam nga comme li ma rek am na ñoo xam ne fi la ñu nekk di la bëggee yu sam la xam ci rajo bi wala ci télé bi rek la ñu yem xam nga mais du jour lañ lay gis xam nga buñ lay gisee nag cofeel boobu ak nammantigu bi xam nga mooy tax yaay yëngal nii xam nga mais vraiment contentement la pour ñun am nga ñu fi nekk ñooy bokk koñ buñ bokkul koñ ñooy jege koñ ñëpp ñun la rek waaw waay waay tey boo fi ñëwee tamit en tant que roi des arènes koo xam ne nii tey exemple nga ci seenu Sénégal ban message ngay lancé ñi nga xam ne ni yàlla dogalul ñu nekk fi parce que ñaanaluñ ko kenn mais nag jombul kenn dinañ tooñ sa dugal ko fi mais ban message ngay lancé jeunes yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi ñu gën ko am ci ci bi waaw li ma lay wax rek parce moom nit lu muy nekk rek ginnaaw sa jaamu yàlla isam la jub da am solo comme li nga wax fii ku nekk mu ngi fii ñoo xam ne dañ leen tooñ indi fi ñi nga xam ne erreur la ñi nga xam ne xam nga ñoo tooñ wala ñu tooñ yoon xam nga ñëw fi di ñaar ñaanal ñoom ñëpp rek ñu am liberté mais nag lépp nañ koy teg ci yoon rek comme ni ma a ñàkk mais bëgg dëkk ci jum tamit bu yàggee da ngay doon nit a di xam nga ba tax na nañu xoolaat isam la xam nga xool ni ay yaakaar lañ ay père de lañ ay kilifa lañ isam la waaw bu leen yàlla may liberté daal ñu gën a xoolaat yàlla kàttanal leen boo dootuñu ñëwati fii bu soobee yàlla incha allah jeunes yi tamit teg seen tànk ci yoonu njub ci yoonu saatal mu saxim loolu rek mooy mujj te mooy dëgg. Euh, comme daje nañ tamit sénégalais yi moom xam naa ne duñu ñu doyal ci say wax sa rawatina say supporters sa combat bu ñu doon dox ay weer lu mat atum yàlla ñu naan Modou Ama Modou Ama ba tey ñu ne mbir ma léegi taxaw na combat bu mois de juillet la loolu actuellement Modou mën na ko confirmer ndax combat fi mu nekk nii taxaw na. waaye waaye combat bi taxaw na comme li ma wax rek ñun xam nga li Nicolas la ci ñun ba tax na joxoon nañ ko suñu accord de principe bu yàgg bu déggee ñun ay mbër lañ làmb moo ñu tax a jóg ñu fi nekk ay taamu yu bari ay kii la ñuy bëri nii la def nii la def non non ba ñu pare ci combat bi amoon nañu ay cible ñi nga xam ne kii ak ñëw ak ñi bu ñu leen amoon ñu bëree léegi Nicolas ñëw nañ waxtaan ak ñun exemple ndax jox nañ ko suñu accord de principe léegi kee moo ko dese woon na ko alhamdulilah sant yàlla léegi rek ay sew rek moo ci des ñun ak ñoom incha allah jéggale ko bu soobee yàlla. mu mel ni combat bu yàggoon la mais tamit bi mu taxawee kàddu yi commencé na jib démb bën nañ ci daaj euh, dégg benn bu mel ni Zil Balde moom ne ne bés bu yàlla defee barrière yi tëju su keroogee lépp loo doon jaay bu kerogee yow mu dina lamba dégg nga lool non wax dëgg yàlla dégguma ko nag parce man moom euh, du wax yu nekk laay déglu quoi am na ñoo xam ne moom am na wax yu am njëriñ am na wax yi nga xam ne amul benn njëriñ boo ko dégloo amul loo xam ciy jëriñ. man ah, xam naa suma devoir xam naa li ma war mbëru làmb laa ci làmb laa nekk li ma war man maa ngi ci incha allah di ñaan rek yàlla mu may ñu tal ak fekke ba date biñ ko jàpp yàlla may ma ci ndam loolu rek mooy l'essentiel kon daal wax jooju sil wax moom du wax ju am njariñ pour yow wallaay du ma sax déglu ay waxam yàlla rek moo tax ma lay wax wallaay la azim mais mais mais Modou Dia parce que tamit euh, ku mel ni Balla Gaye 2 tamit génn na wax na ci combat bi am na ñuy xalaat naan est-ce que la amoon sa combat bu njëkk parce que say say soppe dañ ne dañ la sotoon waaw ñoom loolu lañ waxoon est-ce que yaa ngi sóoraal loolu ci combat bi. day man yooyu sóoraale ma ko xam na lay sóor man moom lu ma war a def man ci loolu laa nekk mais ma ay kii sot ak kii sotul def la la kii def la non li may def loolu moo ma concerné loolu loolu loolu loolu rek moo ma tax di kii daal ay fa ay lu ñeneen nekk di def ak ay seen bëgg-bëgg yooyu déedéet man sama lépp ci loxo yàlla ko bàyyi. di sabablu nag def li ma war a def. Modou dinaa la ko laaj Ama Balde da ngeen a bëri woon ca parcelle nga daan ko ci Mbapat ah dama laaj Garga Mbossé mu waatal ma ci sëñ Babacar si na yaa ko dàq bëre te moom def la jëlee ci combat bi ndax moom fekk na bëre boobu. waaw xam nga Garga moom suñu frère la suñu lépp la isam la ñoo bokk lépp ñoo defandoo lépp li a mer ci làmb muy début xam nga ñu ñoo ko defandoo ci làmb xam nga ba tax na tey. li ma xam ci moom loolu la xam ci man moom it muy champion bu mag macha allah di ko ñaanal yàlla may ko combat te may ko ndam incha allah mais bëri woon naa nag moom ak moom yooyu yëpp intéressé wu ma maa ngi mel ne incha allah tey dina mel na tey mooy suñu premier combat. bu mel ni kuy door am combat. incha allah waay. gaa yaa ngi wax fit bi ak sañ-sañ bi. waaw ah, yàlla baax na yàlla may tal ak rek. am na loo xam dinaa la ko laaj coow la tey ci dëkk bi mooy Papa Sow. non papa non man da jeex parce que <laughs> Papa Sow ku ne xam ne sa grand frère la yéen a bokk parcelle ñu xëy tey ne dàq nañ ko griffas loolu Modou bu mu ko yégee wala loolu nu ko Modou gisee. non non wax dëgg xam nga écrit moom coow yooyu des fois du si mën a ñàkk muy sama écrit rek yeneen écrit rek yeneen écrit ñuy bokk teen xaw ma la ñuy wax ñooy laxa sooy goj xam nga ba tax na damay ñaan ñu gën a waxtaan ñu trouvé wu la mais papa moom mu nekk face rek mu nekk feneen ak feneen suñu devoir ci moom dañ koy def suñu grand frère la dañ koy jàppale ci lépp lépp lépp lu mu dugg mais dañuy ñaan rek ñu retrouver wu parce que bu muy bëre ba léegi Fass la nekk ta ñoom yàgg nañ xam la ñu waxtaan rek trouver terrain entente après affaire yi avancé. yow dàq bi lu la daal. non du solution ay dàq la ñoom est-ce mën nañ ko dàq parce que ñoom moomuñu écrit ba ba ah. écrit yi président écrit bi ak ñi mu àndal. ñooñu est-ce que fekk ñu fa papa ay président yi ngir beeg yooyu noonu boobu nekk boobu nekk président papa moo ñu fa mais nañu waxtaan daal yooyu yëpp sax jaru ko isam la nañu waxtaan seen biir isam la retrouvé wu ànd waat liggéey quoi. kontaan ci yow. ah kontaan ci yow. ñoo gën a bëgg seen baax kontaan nañ merci jërëjëf